xuli loolu sama way ndëpp la loolu damaa judd rek fekk ko fi nee nañ Siteu daa daa jël sa wax Siteu daf maa tooñ lu la tooñee are yi ñu bu ñu dem ma daan la are yi laa bëgg mu dajaleel ma ko pagateel ma ko ba mu baax joxal ma ko cag-cag mu livreel ma ko are yi man maa ko moom Siteu bu ma wenn problème nag mais mais man ma yaakaar golo ga ca xóoba non dama ne la. loolu sama loolu sama yëf la. mais Golo Gecce fan nga dama ne la Golo Gecce Tamba Golo Gecce Teck Kédougou ak ba ca Ziguinchor a yëpp. koo ci bett ñëpp koo ci bett ñëpp koo dem xiir xel mi ci yéeg ne. bu <laughs> ne sama xel mi yéega ah. jara na ma xajal ma jàll. xaw ma taa mais defal ndànk jara nee na fi mu ne nii. amatul lu muy xaar ci làmb jooju. moom moom luy problème am. mooy xeex ak yow. nee na bëggul ñëw sax jàpp la daan la daa bëgg xeex ak yow xeex bu sax jàpp la. na ñëw xeex ak man. loolu may naa ko na ñëw. sañ nga déggoon teg moom xeer. man aw ku may lu may ragal ci jara fi mu ne nii dama xajal ma jàll. Dakar du saf ñaari yoon. daa ma sa saf. musul saf. te du saf boo boo saful ba am karaw dënn dootoo saf. mais yow lan nga jël jara. daa am karaw dënn ah. lan moo tax nga jël jara. non lan ma ñu boole rek dafa bokk sama yoon rek. nee naa la immeuble boo gis da ngay jaar ci fi mu ne damaa nekk sama yoon rek mu tombé moom nii rek damay fëlaale damaale. jaalaale. mais xam nga jarak. a ah, xam naa ko seetaan naa ay combat yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri. mais nag mais nag dimanche bii ñu ngi jëm ci Papa Sow ak Siteu nan nga gisee làmb jooju. waaw Papa Sow Siteu loolu loolu làmb la loolu làmb njariñam la. nee naa la dëggoon nañ ko fi mbëri waaj ku ci nekk waaj ba desul lu dul bëre. mais bi nga déggee yàqu na lan nga yëg. affaire yi yàqu loolu loolu loolu coon mais tamit. Euh, euh, waa waa jàmbaar dabu nañ ko instant sita nii Siteu ak Papa Sow dimanche incha allah combat yi ndaw neex na wax dëgg yàlla kon nañ xaar dimanche fii lamb ju neex moo fi war a am. ci bu ndaw ci diggante Ndiol ak Ndama lan nga ci mën a wax. nee naa la saf yaa di ko wécceeg Ndiol mu tooy. waaye nee naa la ah Ndiol nagu Ndiol yëgul Ndama. Ah. waaye Ndama tamit yëgul Ndiol de. Eh, eh. voilà combat la Papa Sow mën naa ne adversaire yu mës a am ci àdduna yëpp. ñoom ñoo ko sut. mais Papa Sow est ak ci wàllu nee naa la Papa Sow dafa nekk ci yoonu làmb. instant bi nii na xaar lépp war na mën a bëreeg ñëpp moo ko Siteu nag làmb la. lan Papa ku rey ah Siteu tamit ku ko yombalal moo nee naa la làmb la Papa day ñëw. daa war a ñëw wala buñ xeexee. ci côté xeex. buñ mun naa la ci côté làmb man man boog li ma gis may analyser nii rek faral buy faral di am sax boobaa laa faral ndax ñoo bokk parcelle. yaa ngi dégg waaw en tant que mbër dama ne la boobaa moo ko dàq bëri. Eh? moo ko dàq xeex. Eh? mais si te moo war a prouver. ndax moom moo gën a nekk xale. moo war a ñëw wane. Ah. wane ndax si te boo xoolee. waaw combat gagnant yëpp da koo perte. combat yi ko war a yëpp. da koo perte Siteu bu li koy indiwaat ci làmb nii ak jéego nii fonk gi fonk booyam yi ak jàpp gi mu jàpp nit démb ni ñu jàpp ko xam nga bu bu bu yuuxoo ñëpp ñëw bu xewlee ñëpp ñëw xam nga loolu moo ko waral loolu moo waral mu nekk ci fi mu nekk ba léegi mais Siteu bu doon sama jaar yi ah wàcc nañ bu yàgg day rës mais buñ jàppante ah. buñ jàppante ñoom ñaar kan la a arrangé mooy Papa Papa buñ jàppante buñ jàpp Papa da koy Papa bu jàppee Siteu da koy bëreloo ba mu ñaar ñaar ci côté bëre laa lay wax. Siteu Siteu ni mu war a amee doole amee wu ko doole. Siteu boo xoolee combat bi yëpp dañ ko jaay doole. man xaw ma li xaw ma li problème am taay baa ngi fa mais mais ci biir géew du wane seen. mais mais gisoo ko open press bi. gisuma ko bi dafa war a ñëw wane. li tax gars yi topp ko mais état bi Siteu gars yi toppee wuñ ko làmb nii def social yi ak yenn détails yi moom la moom la ko public bi toppee bëggee ko xam nga rek ak bëgg nit moom moo jege booy moom moo woon booy li tax booy topp mais combat gagnant yëpp combat yi ko waroon a yéegal yëpp da koo ñàkk dañ ko waxtaanee rek moog Sa Thiès moog Gouye Gui bari na ay combat ay ay moog Aliou euh, Aliou Aliou Seye. Ah. wala Boy Seye. Boy Seye Boy Seye ay combat yoo xam ne woon moo ko waroon a yéegal